salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi damay ñëw ci problème mu Rita ak Feuny sénégalais yi ma ciy interpellé sëy bi see confirmé maanaam tas nan ñoom ñaar Rita dafa bàyyi woon ay yitteem yépp bàyyi théâtre bàyyi lépp te ku xam Rita xam ne sëykat la ku dem ba bàyyi ay beewam bàyyi ay théâtre am dem sëy ñag yi ñoo nekk ay doomu xaram Rita ci boppam jigéen yu baax la te ku xam Rita xam ne amoon na ay beew yu baax am ay teraangaam yor ay otoom yor léppam Rita nag jóge na fi nga xamante si nii moom mooy France esa bii nii mi ngi noonu euh, ci Modou Gueye héritage di def ay shooting mais daal li ma leen mën a xamal ba xamal leen ko mooy Rita sëy moo ko taxoon a jóg yaa ngi dégg sëy moo ko taxoon a jóg ak fulla mais ñag yi ñoom ñoo nekk doomu xanaam sëy bi man maa leen koy wax c'est confirmé jot naa ko téléphone c'est confirmé que sëy bi tas na moom nag site internet yaa ngi koy woo télé yaa ngi koy woo euh, lépp a koy woo mais demul ci benn site demul ci benn télé nekkul ci ay détails mais li mu leen bara a confirmer ba ma leen confirmer mooy sëy ba tas na sëyatul mi ngi noonu ci Modou Gueye héritage di def ay photo shooting am ñu xamee ko noonu mais ñag yi ay doomu xaram lanu ñag yi dul ay nit ñu baax seeg ñag a gën a bon sénégalais yi xas Rita nag wala di yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci Rita booye boo ngeen arrêté ko te xam ne Rita Seye moo ko taxoon a jóg moo ko taxoon a jóg mu bàyyi itam yëpp bàyyi théâtre bàyyi yëpp jógee dëkk ak dëkk dem say nit ku baax la kon bu ngeen xamul dee leen maandu dee leen maandu dee leen maandu dee leen maandu te ngeen ñaanal ko yàlla defal ko jàmm wasalaam.